une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer xam naa ne timis a ngi bëgg jot te sëñ bi fi ne war nañ ko yeewi balaa waxtu wee jot mu mën a egg ca jàkk ja waaye balaay booba sëñ Omar Fall mi war nañ ko jox kàddu gi waaye sëñ Mignane Fall moo mi nga xam ne tey jii mooy ndawal ndaje mi tey jii nga xam ne sëñ Cheikh Fall mooy kër sëñ Talla Fall tey waaye teewul jataay bi nag sëriñ maam Cheikh mi nga xam ne mooy sëriñ Mouhamadou Amine Gueye lépp a ngi ci loxoom yàlla na ko lépp jik yàlla na ko yàlla yeggaleel yéeneem ci liggéeyal bi muy liggéeyal sëriñ Touba. sëñ Cheikh mu ne bu fekkente ne dem nañ ba waxtu timis bi jot ñenn ñi moom danañ am ndigalal yeweeku kilifa yi ak yooyu waaye ñun ñi nga xam ne nag dañoo yor liggéey bi te daje jafe nee na moom képp koo xam ne kii yaa ngi koy dégg yeewu la. ginnaaw loolu ñuy xam ne tey jii Serigne moor Fall mii moom Serigne Modou Fall aramkan mooy kilifa ma sàmba tey jii moom it ni ma ko waxee woon léegi yal na ko yàlla may ak wér mu gunge njaboot gi ba teg leen ci yoon wa nam gënee. waaye bu dee ci kër taala jii sëriñ Mor Ndumbe mais ma ñaaw nee na ma mooy kilifa kër sëñ taala tey jii ndax moo fi mag tey jii ndax kenn ku ci ñoom ku fa ku ñëw ku moom ku mag amut sëñ Cheikh jox ko léppam waaye lim ma wax mooy neenam nañ ko santal mbooloo mi waaye ci njëlbéen gi sant gi mi koy tàmbalee ci diggante ab taalibe akub sëriñam taalibe bi war a sant sëriñam ca lam ko defal mu ne mi ngi wax ci turu baayam ak turu mboolem njabootu sëñ Talla Fall nee na ñi ngi sant Serigne Maam Cheikh Gueye ci turu Serigne Mame Lamine Gueye ak mboolem njabootu Serigne Mamadou Amine Gueye ndax nee na wóor na ko ne Kër Masamba tey jii suñu mënee suñu manee doon ñaar wala ñett wala ñeent wala ñi amu fitu di daje Serigne Mame Lamine ko def ci ñoom te tey jii nee jëlaat nañ lépp delloowaat loolu Serigne Mame Lamine ndax. suñu masina mas ko wax waa kàbbu gay yi ndax waa kàbbu gay yëpp taalib bi sëñ Modou Moustapha lañ woon waaye sëñ Modou Moustapha ci bëgg bëggum bëgg suñu blaat ba mu demee bay sañ daaraam ja wax Daaru Salaam bokki bar gi la jël ay taaliba yu sant gay yu bari jox leen ko bis mas leen a dajale ne leen yéen ñi dey sunu àggee fan jëm mu neex leen mu naqal leen maay maa leen di layal seen mbir waaye nun nan xam ne waa kër ma sàmba sil mu neex nu mu naqari nu fii ak fan jëm suñ mën laa mel moo nuy lijjanti suñ ko xamee fay nañ naar ba xorom sa donte defuñu dara waaye suñ ko xamut goree dinañu képp ku yàlla boole ci ma sàmba ak foo mën a ne fu la yàlla féetale fu mën a doon del bàyyi xel sëñ Mat Lamin te di dox kóllëre ga ak lu mën a doon bis ci la ngay am la lay tax a jàll la lay may ndam la lay may la nga bëggoon ci sëñ Mat Lamin lay jóge yàlla def na ko ba noppi kon nag suñ maam Cheikh jot gi nga def ci liggéey bii ñëw féete foofee ba noppi raaxaloo at suñu biir jox ñu euh, euh, toogaayu bokk yàlla na la yàlla fay ñaar yëpp ci dara ji suñu Lamine man de woon na sëñ Tuubaa Mbàkke su ma xamoon loo xam ne su ma ko ñaanalee lépp loo yéene daal di taxaw ci sa kanam nga daal di koy tàmbali boole ko yàgg fi loolu te wér barki sëñ Tuubaa dinaa ko def waaye yalwaan naa ko ñëpp ñëpp nañ ko ñaanal ñaan gañ gën a sori ci seen biir. te nan góorgóorlu rek te aw ci yoon woo fan jëm buñ fa àggee nee na fii laay téyanteeg yéen baati mbubb bala noo egg fële su ngeen nekkee ci li leen war da ngeen di dem ba jéggi siraat jot ngeen xaar ma ca xurwa ma dem layal leen nu teggi na la dugg àjjana wax jooju du wax ju ndaw de fii lañ ko war a lijjantee nag léegi kon sëñ bi ñu ngi lay ñaanal di la sant xam naa ne daanaka balaa maam jaar sëy mii di tàmbali wala sëñ Omar dañ lay bàyyi rek nga def ñaan su ko kii rek ñun ñu wéyal kon xam naa sëñ bi balaa muy yeewut rekk am na kàddu yu mu wax yu mu bëgg a jot li du lenn lu may kàddu yi sant yàlla rek moom mi nga xam ne nam ko wàccee ci alxuraan wa bind naa leen ngeen di góor ak ay jigéen doon ay giir ma wàccee leen ngir ngeen xamante nee na sant na yàlla lool ci fi ko yàlla boole nee na mi ngi leen di ñaanal tey fas yéene ànd ak yéen fu ngeen jëm mu ànd ko ak yéen yéene leen lu ne li mu yéene boppam lépp yéene leen ko li mu bëggal boppam lépp bëggal na leen ko nee na mi ngi ñaan yéene ji nga xam ne Masamba amoon na ko bat jël ak njabootam jox sëñ Mate Lamine sëñ Mate Lamine yéene jëm amoon ba am lu mu digg ci njabootu sëñ Masamba nee na yàlla na ko yàlla def te ñun ñëpp nu fekke ko nee na sant njabootu ñi nga xam ne ñoo aaye bis bi tey jii nag waaye loolu dafa am lu yéeme lu ci am te nam amee mi la ko waxe te noonu la bëgg ma waxe ko ni ndax sëñ Cheikh Fall mi nga xam ne tey jii mooy magum kër taala kër sëñ taala Fall tey jii nee na keroog bi yàlla dogalee suñu borom moom mi sëñ maam Cheikh ñu feral ko am soow noonu la ko waxee ñu feral ko am soow nga xam ne nàmpatul ñu yóbbu ko jaylaan mu nekk kaylaan mu nekk fa nee na sëñ Cheikh Fall Astou ko déggee keroog la ko defoon ab sëriñ añ ak reer ak ndékki diirub lam fay ne bis bu set mu jox ko kon kii fa àndee moom du tey ji kon nag sëñ Cheikh li ñu xam ci moom nee na du wax sëñ Cheikh Fall du wax najaay sëñ Cheikh Fall baay Cheikh Fall lay wax kon kooko am na cib wàll ndax wetu baay la ko féete woon foofa waaye diggante sëñ Cheikh ak sëñ mu ñaaw ak diggante sëñ am di ak sëñ mañaaw yaakaar naa ne ku amuk seetlu wala nga fi xam ci kër gi dara danga xam ne ay jàmbaar lañ ci jàppale sëñ mañaaw ndax mas naa koy wax ci suñu mennum ndaje sëñ mañaaw ba mu amee ndigalal dekkal Touba Gaye di soog a samp kër sëñ am di moo bàyyi këram tëj ko ñëw fekk si ko indaale lam am lépp di ko jàppale di ko jàppale di fa nawet di fa noor ñuy ñaga ka sàkket ba kër ga taxaw mu bàyyi fa ndek ndem ndakkam ndem ba gay fa la nekk di liggéeyal yàlla ba wàcc liggéey kon kooku ku ne xam ne jàpp waaye sëñ Cheikh Fall Astou mii diggam ak sëñ bi ñaaw dara doxu fi woon sëñ bi ñaaw wóoloo woon na ko loo xam ne lu masaan tege ci loxoom rek wala lu ko nit bëgg a jox mu ne joxal ma sëñ Cheikh Fall léppam mu yoral ko ko ba ci jàkka ji ci kër gi damay toog léeg-léeg di xool facture bi sama xel di ci dem kenn defu ca turu kenn demande courant ba turu sëñ Cheikh lañ ca def diirub li muy nekk ci jamono di man dara moo fa wàccee courant ba di fay facture ba nit musta xam ndax dëkk da jàkk ji courant na ci wàcc wala déet ba barki ki boo njaay loolu yi jëf la joo xam ne ji yal na ko yàlla fay ci dara ji sëñ Tuubaa dara teewu ko ñëw fii nag lu yaram mu nanguwul rek waaye la muy yëg moo lii nu nekk rek moo yem kon nag sëriñ bi loolu lépp tawfeex sëriñ Modou Lamine Gueye la woon ak sëriñ Massamba Sylla ñi ngi ñaan yéene yooyu nga ci tudd ci diggante bi yéene Serigne Mamadou Amine Gueye ak bëgg-bëggu Massamba ba mu amoon ak yaakaar jam amoon ba tax mu jël njabootam gépp jox Serigne mu Amine la cay xew yàlla bu mu la ump adduna ak àllaaxira ci dara ji Serigne Touba kon na ñëpp talal sëñ bi def ñaan su ko defee ñu wéyal ñun. barakaatoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatoo yéen waa kër Mame Massamba Sylla Fall maa ngi leen di nuyu di leen ziar ki leen nuyoo ko ziar Bintu Sey la bu Soxna Fat Fall bu Mamadou Fall aramkan bu Mame Massamba Sylla Fall maa ngi ziar yéen ñëpp di jégalu na ci kàddu yi du sama mën a wax waaye bu ñëpp gàntalee yaakaar naa ko wax du fi kon nag ma jéem rek lu ci dëng tamit ngeen jégal ma ko di soññi sama morom soxna yi rek ak góor ñi ñëpp di jégalu tamit ci mag ñi di soññi mag ñi ci mag ñi laa njëkke mag ñi comme ni ko Sayer Fall waxee dimbali leen ñu ngir yàlla di ñëw ci ndaje yi ndaje yi parweer yi xëy na seenu jot mayu leen ko te seen yitte mayu leen ko waaye kenn mag mu ne kër bu la jegee bu la ndaje mi jegeeti ngay ngay ñëw boo mënta ñëw nga soññi sa waa kër ne leen dem leen ca ndaje ma waaye ndaje mi su ndaje ndaje famille yëpp dañuy dem gis seen i mag di leen jëmmal di jiite ndaje ya waaye ndaje mi rek nga dul gis ngay ñëw ba dem doo ci gis menn mag lu dul at ba atati kon dee leen ñu dimbali ngir yàlla ndax xam na ni lii taxaw ngeen ci ndax yéen ko taxaw ba mu toll fii mu toll waaye nag dee leen soññi njaboot gi ñuy ñëw ci ndaje yi dee leen soññi njaboot gi ñuy ñëw ci ndaje yi xëy na am na loo xam ne nii seen i at toll na foo xam ne am na ñoo xam ne mënatuñ ko waaye nag kenn ku nekk bu bu mi jotee da soññi sa waa kër ñëw ci ndaje yi waaye am na ñoo xam ne nii maam Modou Fall arab kan mooy seen maam ñoo ma ne ci bokk yam dinaa leen soññi ndaje mi bu doon am seen biir kër sax duñ fa teew te loolu jaaduwul di dikk sama moroomi soxna yi ñoom tamit euh, dafa mel ne otes yi lañ gën a farataal ci teg bi xëy na ñoo tane góor ñi waaye am na ñu ci des ba tey ndaxte dañ naan teg kenn du teg kenn du teg te buñ ne hôtesse ñëpp riir jëm jëm ca hôtesse ya xotti hôtesse te xotti hôtesse lu mu néew néew néew da nga ci def 3500 néew ba doo ko dikk te ñu ne la at ba at 3000 loolu loolu loolu yaakaar naa méttiwul te doo ko tegandoo benn yoon dañ ne la weer bu nekk nga indi nangam ba at mi jeex kon loolu yomb na te tamit maa ngi proposé dara léegi ndaje mu amati kon tey ñuy famille Mame Talla Diobé tey buñ ko aayatee nañ jël ndugg mi ak si yeeg li ñu war a defal yëpp jox ko famille maam Talla Jobbe ñu defar ko bu ëllëgee bu ko famille maam Modou Fa Aram Kan aaye ñu def ko noonu ndaxte tey jii organisateurs yi ñi ci limoon sax gisoo ci ñenn kenn du dikk ndaje mi daal dañ koo bàyyee benn lim bu tuuti kër a Samba dafa mel ne ndaje mi ah, euh, benn mbaar la rek benn jën nekk ci jën boobu bu téyee ba ba sonn rek bu ko keneen awut day bàyyi bu bu keneen dikkee dañ koy bàyyee kooku bu yàggee nag mbaar mi day rës côté yëf yi du du yëfi kenn ñun ñëpp ñoo ci bokk ya maam Samba suñu maam la ñun ñëpp kon nañu ñu ci ñun ñëpp jàpp euh, ndaje mi tax war nañ koo gën a fonk ndajam weer mi di ci ñëw tey teg ba pare euh, lii bu ñëwatee na ci ñëpp ñëw kenn ku nekk daf def ko sa yëf bopp bu fi loolu mënta am nag kenn ku nekk boo aayatee sam ndaje nan la ko jox du tee organisateurs yi nekk ca di organiser waaye nan la ko jox nga toggal sa bopp defalal sa bopp sa yëpp man lool lool moo ci sama xalaat di ñaan sama mbokki jigéen yi bu kenn dem ndax dañuy bëgg a samp bureau te bureau bi kër maam Sayer ba kër maam Omar soxla nañ ci ñëpp kon ñoo ngi jéggul ci kàddu yi lépp di ci dëng wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer